kontaan ci sa waa ji nga xamante ni li mu lay defal ci laxasaay mhm. ëpp na réew mi ñëpp ak ma koy laaj. as borom pigit waaye tey suñu bésu safaru tey bi mhm. xam nga fan yëpp da nga koy yëngal di ko régal mhm. mais tey ma njaay dama suba nag damaa waxtaan may la mag ñu baax ñi ñi sëñ Tuubaa defar ba ñuy defaree ndax loolu rek mooy njariñ ci àddina ndax nag li naan yar rek moo am lu solo waaw ndax ku yaruwul doo tekki dara waaw tey nag ñu dalal ko xamante ni Sénégal ko bëgg àddunaa ko bëgg ak yaram ak baaxam ak xolam bu rafet muy alaaji dégg daaj ak sëñ ay dara saw ñu war a waxtaane nag ñu baax a baax a baax a baax a baax maara tey suñu safar gi du yomb mii noonu ah, waaw tey safar gi du yomb de du du yomb de comme spécial sëñ Mandoumbe Xabaan lay doon waaw waaw spécial tey waxtaan mag ñu baax kooku moom moo di maamu Serigne Mamor Abibou nga xamante ni moom jàmbaar la lool ci màggal gi nga xamante ni bu màggal tero mhm. day tàmbali benn yeeg euh, yooyu mhm. rawatina nag bu bu bu bu bu ba ca bës ba mhm. bu ñu yeggee ci bés ba moom amu ci amu ci sago moom ay millions yu baree baree baree baree bare la ciy def ah ñu ngi dalal suñu suñu beneen gan suñu invité euh, moom itam agsi na ci plateau bi ay dara ñu ngi koy jaare bu baax a baax waaye alaaji dégg daaj itam mi ngi toog moom itam di suñu xarit di jàngkat di bokk ci waa kër Cheikh Béthio Thioune waaye itam bokk ci waa kër Serigne Manoumbe ndax génn na woy woo xamante ni ci màggal gii woy na sëñ ma numbe loo xam ni Papa ci kanam tuuti dañ ci gën a waxtaan. Mara tey bis bi dafa rëy de. waaw dafa dafa dafa rëy de. ndax euh, sëñ ma numbe mhm. bokk na ci ñi sëñ bi demee. ñi daan bay. Mhm. waaw di di dundal uh, uh, njabootu uh, murit hmm. waaw tey lu bari dina feeñ lu bari dinañ ko waxtaane njëriñ rek njëriñ lu bare bare bari ko waxtaane sëriñ bi laataa ñoo dem ci dégg daaj moom mooy kilifa jotaay bi nañ ko bàyyi mu ñu ñu ñu njëkk ko nuyu xam nga ambianceur dafa dafa bari ay couleur macha allah ambianceur saa su nekk ak fi ñuy génn gis ngeen fan yi dugg nañ ci kër maanaam njaboot Serigne Touba gi dugg nañ ci fu ne dem nañ ci Baye Fall yi dem nañ ci waa kër Cheikh Béthio yi dugg nañ ci waa kër Serigne Saliou yi fu ne ayca yëkkati bien euh, tey dañuy dem ci waa kër sëñ ma numbe xaban ñu dalal koo xamante ni euh, bokk na ci njaboot gi te mën koo waxtaane lool muy euh, sëriñ ay dara Sow ñu ngi lay ziare di di am mbég ci dalal la ci plateau bi ñu bàyyi la nga duyoog sénégalais yi seetaan. incha allah barke xadimi rasul euh, ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare bu baax euh, di leen ndokkeel di am mbégte bu baax ci séq ak yéen jotaay bu màgg bu tedd bi jërëjëf ku baax jërëjëf waaye nuyoo bi ak siyaare bi ñu ciy jiital alxalifa Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom may ko fan wu gudd lool wu ànd ko wér waaye di nuyu ki nga xam ni moo ñu fi yebal sëriñ Maam Mor Mbàkke Abibu di ñaan suñu borom taxaw ko ak mbooleem njabootug sëñ Mandumbe yëpp amiin di leen nuyu yéen ñaar ñi nga xam ne yéen taxawu jotaay bi te mu rafet lool te mu murite lool nag ci doxalin weeg yëpp di nuyu sama xarit bu baax bii ma bokkal muy sëriñ dégg daaj mu baax mii nga xam ne bokk nañ ay émission ci di jëmmal màggal gi ak di waxtaane sëriñ Mandumbe kon noo ngi leen di nuyu baax te di leen ndokkeel ci bis bi nag di leen ndokkeel ci weer wi ñu nekk muy sehru safar alhamdulilah ak ah, kay jërë ngeen def jëf tabaarakallah jërëjëf jërëjëf ay dara ñu ngi bëgg bu baax a baax euh, annoncé na gan gi nekk suñu wet alaaj yi dégg daaj moom nee naa leen Cheikh Béthio ko tuddoon dégg daaj ndax dégg gi ci moom <laughs> ndax mën a woy ji ndax baat bu neex bi waaye ndax taalif gi xam nga man xalibaam xaw na maa jaaxal ndax moom macha allah mbind mi du mbindum gone yow waxi Cheikh Béthio day ay caaxaan ba mu xool nit ba ci ne ko dégg daaj ba ca xol bu rafet ba alaaji dégg ñoo ngi am mbégte ci dalal la 7TV ñu ngi amaat mbégte encore une fois yow fii sa kër la yow fi nga bokk. dëgg la waaw fi maa ngi lay ziar bu baax euh, alaaj Mara di la nuyu di la ñaanal jàmm di nuyu euh, alaaj Papa Ndiaye di ko ñaanal jàmm ju baree bari ci barkeb Sëñ Tuubaa waaye du nuyu ki nga xamante ni mooy ay Aydara Saw euh, moom it muy boroom xam-xam bu màgg te sell maa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm ju bari di nuyu sama sang bu tedd ba sëñ Saaliw Ndigal Cuun yàlla yàlla guddal aw fanam eh, sëñ Mamour Mbacke Abibu maa ngi koy ñaanal yal na yàlla guddal aw fanam muy jëmm joo xamante ni léppam sëñ Tuubaa la boo xoolee màggal gi rekk ko ñor te sëñ Tuubaa daana wax naan màggal gi ku la ci raw xaw ma foo koy dabee mm-hmm. kon sëñ Mamour yal na yàlla guddal aw fanam ci barkeb Serigne Saliou Mbacke maa ngi nuyu képp koo xamante ni rek yaa ngi seetaan 7TV Mhm. yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am jàmm jërëjëf alaaj Papa Ndiaye gan yaa ngoog eh, waaye dina ma neex laataa ñu dugg ci waxtaan wi dégg daaj ubbi ko ah bu ko ubbee dina ma neex de ah, dama nam baat bi te moom dana namante ci yu bari nag yu bari lan namante ah, maa ngi maa ngi nuyu suma suma suma xarit Ali Fashion depuis Mbour moom ni ma joué ass di defal nii ci màggal gi moom noonu la dëkkee ak man. laxasaay ni laxasaay ni mu lay def man damaa yéem man mi toog ak yow. da nga may bàll gi téye micro bi boo ko tegee. moom mooy waral muy am. Ah. mën nga uuf sa téléphone. Ah. uuf ko uuf ko ah. waaw waaw. bu ko moom ñu ngi koy nuyu bu baax Ali Fashion depuis mbuur nga xam ne moom itam yàgg na jàpp ci suñu ay solo yu demee noonu waaye suma xarit Amadou Camara Camara yile nga xam ne mooy borom njurul amablement. yile baaba Saliou bi nga xam ne salon ak meuble moom moo ci man dégg naa lool de fauteuil avion yi moo koy defar. <laughs> moom looloo koy daaj looloo koy rey fauteuil avion yi. <laughs> moom ñu ngi kontaan bu baax ci ci ci seetaan gi mu ñuy seetaan ak bàyyi xel gi alaaj dégg daaj. ubbil waay bisimilah ubbil. kon ñu man bëgg naa la. Sëñ Bamba. borom ilaa ya xaadalaaw ne wala yakunu abadan li mulki ne kenn du sëñ Bamba yaa ngi ne ci aw yoon nanga mayu pexey noon gàllankoor mën naa tardeel saw yoon soo ko nangoo kenn du sëñ Bamba géej am na sompaat géej am na tallaar waaye géej la fa gën Lebu Ndooy jël na ko kenn du sëñ Bàmba man de bëgg naa la bàyyi sëriñ Saaliwoo borom lin xaadatin ujur wal ma Saaliwoo bi tey wal jës bi way ni Saaliwoo sëriñ Saali way sëñ Bàmba dëgg la te lu wér man de bàkk naa laa ay balaak maaram amul den nandoo amul den nandoo kenn du sëriñ Tuuba sëriñ Bamba maami sëñ Mamor Abibo kenn du sëñ Bamba jàmmi yaa ko xam sëriñ Saaliwu cant gi la cay ku ko ñaam tuuru deret togg say ñam kenn du sëriñ saaliw ñu ne woon cant gi day giim cant gi lépp la tiim seex bi wëral bàkk say xiin sax ci cant gi te di jëf mbandi xéwalam yaa nge ku ci naan du yag mar wi lay maral daa xewul fii seex bi cant gi la dëkkee yaa ko sant Seex Béthio doyloo ko yaak sa mbooloo yaa ko teg foo tegul kenn nga gën ci mbooloom Seex Béthio na jàkk Sëriñ Saaliwu te ko yow a yow Sëriñ Saaliwu xam ne moo yow cun mu naan la yow de yaay man sëñ Bamba moo feeñoon ca naar ya ba tax pétrole ba di fa balee moo feeñaat ci réew mi ci bu ñu maase woon ne balee sëriñ saali bu ko tubaab bi amoon danañ ko tuddee seen marché yi sëriñ saali bu ko tubaab bi amoon danañ ko tuddee seen hôpitaux yi nit ku ñuul umpale tax mu tudd Serigne Saliou du tudd leneen non Cheikh Béthio raw na gaañi léppam Serigne Saliou buy xool ma nga naan Serigne Saliou wax ma nga naan Serigne man de bàkk naa la sëñ Mamour Abibou Cheikh Manumbe mooy sa maam doy na sax doy tiitër moo njëkk a tabaxal sëñ Touba ay Cheikh Manoumbe Xaabaan jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf El Hadj Dégg Daaj. Ah? waaye am na solo. ñambaat nag ci Serigne Saliou borom jàmm ak jamono. nga xamante ni moom la Serigne ba ne woon li haadatalu jóori wal masaaliw bi tey di wa jës bi way waaye ñambaas na ci itam maami Serigne Mamour Abibou nga xamante ni mi ngi waaj màggal gi di Serigne Manoumbe Xaabaan nga xam ne moom bay na pataar bay bay Mbàkke Bawal bay mbayaar waaw bay na fu ne ngi jox Serigne Bamba waaw moom ay dañ koy waxtaanee te liñ ciy waxtaanee tey dina bari euh, ñu waxtaan ak euh, Serigne Aïdara man damaa bëgg a jël li dégg ubbee nii. waaw may ko sëñ Abibu Mbacke. Hmm. bàyyi sëñ Maam Mor. man tey tey sama bis bi daal hmm. moom laa ko jox. waaw sëñ Abibu Mbacke. Hmm. bàyyi sëñ Maam Mor abu Abibu. moom laa jox lii sawaay ubbee tey. ñu jox suñu jëwriñ kon. Euh, Papa Ndiaye ba ah. bàyyi la tàmbalee jotaay bi. waaw waaw ak sëñ sëñ Aïdara mën da ñàkk sëñ Aïdara ñu ngi lay bëgg di la kontaan di la wax bëgg nañ lool waaye sëñ sëñ dara bu bu màggal gi tolloo fii lan ngeen di yëg yéen. <laughs> waaw màggal gi de. Uh-huh. bu tolloo fii dangay laaj lan la julli ñi di yëg. loolu. waaw ndax dogon ko nag demam gi. Uh-huh. wolof nasaraanu te kon billahi ñëpp dem niiraanu. sëñ Pam Ndiaye. Uh-huh. bu sëñ Touba xëye wutoon Mbàkke Baari Jolof. dem ci géej gi. wala fi ay nasaraan lañuy doon te kon ñëpp sawara leen jëm. jàmm ji nit ku ñuul am ba tax nit ku ñuul xam boppam. Mhm. màggal Touba moo ñu ko may. ah nangu da daa waxoon ne. Mhm. su ngeen xamoon li leen ci suñ borom defal. waaw saa su dikkatee dangeen ko fonk. Mhm. li ñu ci yàlla defal nag lenn rek la. waaw sëñ daa wax ne sababu xaybatiya. an allaha araada an anaala minhu jaaha. wa an akuna safian lil qawmi wa an akuna qaadiman fi dawmi. loolu sëñ tubaa nee na mhm. sabab yii moo tax ma génn dem ci géej gi mhm. loo gis am na sabab mhm. li tax nga ñëw di def émission am na sabab dëgg la li tax ma ñëw fii sabab mooy cause li tax jeex na li tax ngay def mooy nee na li tax ma dem ci géej gi ñett yi la bu njëkk bi mooy araada an anaala minhu jaaxa mooy làq ci yàlla maqaama moo xam ni soo nee benn doona ñaar mooy am ci yàlla loo xam ni ku dul man Ahmadou Bamba doo ko am ba ca topp mooy safian lil xaw mi mooy ràmm xeetu sayduna muhammad foofu dala baax yam ba buñ juddee teraanga ju jii di lislaam ñu man koo jëfandikoo ci seen conscience mën koo jëfandikoo ci seenu dal ba ca topp mooy woy yonent bi tagg ko tagg wu ko doomu aadama musul tagg mu ne ñett yi moo tax ma dem ci géej gi kon Serigne Touba bu fekkee ne ñett yi moo tax mu dem ci géej gi bi ca njëkk mooy ràmm xeetu yonent bi bi ci mm. topp mooy am maqaama mu kenn mësul am mm. bi ci topp mooy tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tagg bu kenn mësul tagg kon màggal gi bu tollee fii mbégteem jullit ñépp la dëgg te sëñ Pape mm-hmm. sëñ Touba def ko ci jamono boo xam ne jamono ji muy laxasaayu di dem liggéeyali yàlla pour am màggal Touba damay wax ne bu sëñ Touba ñëwutoon ci senegal loolu kenn ñemewu koo def sëñ Touba moo wax ne wa min humo man indra a nasaraani yaxsibuhu min malaa'iki rahmaani ndeysaan nee na jamono jii may jàkkaarloog tubaab bi ku gis ab tubaab danga koy ragal ba jàpp ne malaakam yàlla nga gis mhm. mel nu moom sëñ tubaa mu laxasaayu jàkkaarloo ji ak noon yi mhm. te danaa la wax le sëñ tubaa lii nga xam ne moom la laxasaayu def li ko ci waroon a fekk moo bari mais kaaraangeeg suñ borom tabaraka wa taala la am nee na bi ma xëyee mbàkke baari jolof di dem di liggéeyali yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne tëll ne ma bu ragal ku la lor kaaraangeeg yàlla la wa jaala al muxtaaru sallallahu alayhi fi l ali wa man walaahu lahu ijaban maanihan min ad darar summa lahu xaala imsi laa tax sa darar imsi mooy doxal bu ragal ku la lor maa la aar kaaraange gi li koy dëggal mooy sëñ Tuubaa bi muy dem bi mu xëyee Mbàkke Baari Jolof di dem di liggéeyu màggal Tuubaa fas yu mu tuddoon mi ngi fas yu mu waroon mi ngi tudd awnullah ndimbalul yàlla allahu bi nee ko bu ragal ku la lor maa lay aar mhm. fas yu mu war tudd ndimbalul yàlla kon xam nga ne sëñ Tuubaa am na kaaraange gi yàlla ci boromam tabaaraka wa taala mm-hmm. waaye kaaraange gi mooy ngëmam ci yàlla kenn mënu ko yàq waaye nattu yi tege ci kawam nag nu mu war a mettee ci kawam day métti ci moom ndax la ko yónent bi waxoon ndax xam nga ne bi mu sancee Touba. Mm-hmm. ba atum 1895 ca mois de mars ba mm-hmm. ba mu duggee lixtikaaf ci jàkkay daarul xudus ja la ko yónent bi alayhi salaatu wasalaam feeñu bi mu ko feeñoo daf ko wax ne ko yow Ahmadou Bamba dey sa diggante digganteeg nga doon xut bu samaan ñetti weer moo ci des waaye bëgg naa la ba tëbal naa la ko tey indil naa la nome naa la maqaamam xutbaaniya sëñ tubaa ne ko xut bu samaan de baax na xam nga luy xut bu samaan hmm. xut bu samaan bu nekkoon màkka ñaari xar di xeex fii mën naa toog màkka ak atteleen waay xut bu samaan bu nekkoon mali hmm. jaan di bëgg a màtt fii doomu aadama mën naa toog musal ko ci loolu la yonent bi indaaleel sëri ca borom tubaa ci jàkkee daarul xudus ci waaye sëñ Tuubaa dana ko maqaamam xut bu nag mhm. neex na loolu waaye bëgg naa lu ko ëpp ah? xam nga sëriñ bi bëggam dafa kawe mhm. yonent bi ne ko loo bëgg mu ne ko bokk ci ahlu badar fu ñu leen tuddee tudduma lu ñaam maam ko te xam nga ne lu badar bokk ci ñoom yombul mhm. ndax ahlu badar seen fas yan waroon di xare puurit miy génne ci gémmiñu fas bu sonnee puurit mooma boo ko tegoon ci balaas jël wàlliwu kaamil teg ci puurit maa ko ëpp doole waxuma la ak jëmm sëñ Tuubaa ne ko ci ñoom laa bëgg a bokk na ci nit yàlla yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko loolu faat na mënul am la ko doon mayee dafa romb jamono ja moo paase jàkkaarlook say noon rocc ci jaas yi jam leen ñu jam la nii lu wanaalu waxtal xanaa yi loolu mënatul am hmm. sëñ Tuubaa ne ko lii laa bëgg yonent bi nii laa ne ko loolu mënul am sëñ Tuubaa insisté yonent bi xam ne lii mu bëgg daal lu mu am lu mu lu mu lu mu bëgg am la yonent bi ne ko dama laa bëgg ba bëgguma nga di ci dugg ba ci biir di ci génn ndax fii nga toll ku fi masaan togg bëgg na lii nga bëgg waaye daa dem ba ci biir xàcc te li yéeme ci xàcc gi mooy boo xàccee dangay dem sa war a yàqu àndal boobu risque waaye dégg nga sëriñ bi boobu risque ne ko sama ruu gii laa bindul bay xam lu muy attan waaye lu sama ruu attan sama jom dékku na ko dégg nga de loolu la sëñ Moussa Ka di wax naan yan ban yanoon xutba ya lab daale te attanuñ ko kon am na ñu fi njëkkoon di ko yanu te attanuñ ko wax ju leer kenn du maamu sëñ am na ñu fi njëkkoon di ko yanu te attanuñ ko wax leer la dëgg la yan ban yenoon xutba ya ak labdaal te attanuñ ko bàmbaa ko fab raw gaaya dëngëñ di wéy dëngëñ mooy yanuloo attan di doxee num la neexe yanuloo attan di doxee num la neexe la sëñ Tuubaa def yonent bi alayhi salaatu wasalaam signé yàlla signé ahlu badar signé noonu la ko sëñ Moussa ko waxee sëñ Tuubaa nag war a dem liggéeyali boromam mooy sababu xaybati ya annallaaha araada an anaala minhu jaaha léegi nag sëñ Tuubaa mi ngi dékku lu lu metti lu doy waar loo xamante ne mboolem ku ko mas a jaayante xàcc nga sëñ Touba la xam ci ku mas a jaayanteeg suñ borom tabaaraka wa taala te xàccu yonent bi ne ko da ngay génn Touba ndax xarasahallahu Touba yàlla aaral na la Touba ba lu bon nattu musiba fitna du la fi fekk. Touba du ay caaxaan kon. mu ne Touba fi mu nii nii. nit dafay defaroo ba defaru mbaa nit jéem faa yàqu ba far yàqoo fa. ba addunay tukki kenn mënta yàq Touba ndax xarasahallahu Touba yàlla moo aaral sëñ Touba Touba. Mhm. sëñ Pape. sëñ Tuubaa lañ mas a xam ci ku sañ cib dëkk ngir xaar fay natt. allahu akbar société sax boo ko yóbbu da ngay ñaan yàlla jàmm fekk la fa. mu dox la la mu dox. waaw waaye sëñ Tuubaa daa génn Tuubaa dem sañ ci Mbàkke Bari Jolof ngir xaar fa ay natt. ngir xamal bu ñu ko xamal ne natt yu mënu koo fekk biir. déedéet du ko du ko fekk Tuubaa ndax xarasaha laahu Tuubaa. yàlla moo ko aaral Tuubaa. te dem gi sëñ Fallou daa wax ne booba dem jot na faaw mu dem dem mënul ñàkk. la sabab dem gi itam am na buur bu fi nekkoon du jar may tudd tur borom mi bokk la dafa dem ca ndar euh, kese yi nga xamante ne bu ñu bindee ba pare dañ ko ciy tamponné ab tampon muy laaj ne tampon bii ko ko moom bii ko ko moom bañ na ko bii diw ci buur yi fi nekkoon moo ko moom mu jël tampon ba dóor ko ci kayit sëñ Fallou Mbacké ko nett li sëñ Fallou sax tudd na tur wi mm-hmm. Samba Lawbe la naa tudd tur wi ndax sëñ Fallou tudd na ko daal di sànni kayit ba dem këram bind ca euh, bind ca ne yow borom ndar man Samba Lawbe maak Serigne maak Serigne Touba ñu ngi ñëw dal sa kaw ki def noonu jërul may tudd waaye sàmbalaw bi la la la wax ne mook sàmbalaw bi ak sëñ tubaa dal ci kaw tubaab bi tubaab bi tàmbali nag di yónnee sëñ tubaa ay lettre tàmbali di am soupçon ci moom di ko ragal li waral loolu mooy ji buur yi fi nekkoon yëpp yëpp yëpp tubaab bi rey na leen sëñ tubaa tàmbali na di sos mbooloo ndax atum 1889 fekk na yoonu murit daj na Sénégal kàpp mbooloo mi di daw di jëm ci moom loolu la woykat ba di wax naan kajoor ak bawal na ngay walwali jëm mbakke jàppoo xëlëf xëlëf ne ñoo yey ne mbàkkee aaya buur yàlla moo ko def ku daf bay gannaawal bamba nee leen ko moo di def su tuubul ba dee doom naari jaanam yemmatt ko hmm. sëriñ bi nag génn na mbàkke baari jolof génn na tubaa dem sañ ci mbàkke baari jolof tubaab yi tàmbali di ko woo sëñ tubaa jotul ndigalul dem ndax secret bi mi ngi nekk ci 18 safar hmm. sëñ tubaa bu génnoon première safar du am màggal tubaa ah su génnoon 17 safar du am màggal tubaa su génnoon 14 su safar du am màggal tubaa secret bi suñu boroom nëbbu mooy 18 safar. moo tax ñu tuddee ko ko nii. moo tax mu 18 mu ñu tuddee ko ko. ndax sëñ Tuubaa bu noonu beneen waxtu bu fekkul ak 18 safar tey du am màggal tubaa moo tax mu ne xarajtu yow ma sabti saamine asar li xidmatil moxtaari fii sëhri safar. léegi lan moo waral sëñ tubaa war dem nag. jàkkaarloo jeeg ñoo ne lislaam yi. dem libéré ji lislaam. sëñ Tuubaa moo wax ne farra. liyal kitaabu wal islaamu wa ummatul maahi fala ulaamu sëñ tubaa nee na alxuraan daa daw làqatu ci man ma nangu ko làq lislaam làqatu ci man ma nangu ko làq mbooleem xeetu yonent bépp làqatu ci man ma làq leen sëñ tubaa jamono ji muy jàkkaarlu jeeg tubaab yi booba lislaam amatul Sénégal mm. tubaab yi ñëw nañ ko lakk daara yi xaari amal far ci pir ñu lakk daaraam mbooleem daara ju fi nekkoon kenn sañatu a wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah sëñ tubaa moo ñëw taxaw ne lil mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul xaraawa inni ahmadu lii fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi man ahmadu bamba xaadimu rasul danaa ko leeral day am sabab nag mu war a génn nag mbàkke baari jolof le 17 bi la yebal jàmbaaram ja rakkam ja maam Thierno borom daarul moxti waaw mu dem ndar dellu si ci ajjuma ji la jam waaye fajaruk samedi hmm. la borom daarul moxti ñibbisi kenn du maamu sëñ Modou Kara soxna Faat Ja Mbàkke mhm. doomi sëñ Tubaa la mage na sëñ Modou Moussa Mbàkke fukki at mhm. soxna Faat Ja nee na guddi gi sëñ Tubaa war a xëy dem ci géej gi nee na guddi googu reer bi sëñ Tubaa ko séddaleel boppam kon kooku ñeme na fa mu jëm yàgg na sëñ Tubaa moo doon attaayeel boppam yàgg na ci loxol boppam di xellil mag ñi di kafeel boppam di xellil mag ñi bi fajar jotee sëñ Tubaa julli fajar julli suba bi mu génnee ci jàkka ji nanguwuta dugguwaat ci kër gi day jaabante jàkka ji ak buntu kër gi léeg-léeg mu ne Ceerno ñëwagut ñu ne ko déedéet bi fajar di jot la borom daarul muxti ne cëpp ci fas wi jox si ko si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dem bay nettali Sëñ Tuubaa ne ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko dara mëtumaa nettali hmm. biig ca ngoon ba nga nekkee ndar taxaw ca jànj ba xorondoom wa doon dox ci sa tànk yaa ngi woon ndar maa ngi Mbàkke Baari Jolof yëngutub xorondoom ba maa ngi ko doon dégg kon Ceerno dara mëtumaa tey ne ko yoon wi dara ma ci umpul. Hmm. nañ ma takkal fas wi ma dem liggéey li te dem leerale ji tilim ji te dem liggéeyi li suñ borom tabaaraka wa taala te dem leerale ji tuuma jii ñu ma tuumaal. ku ñuy préparé ku pare du benn de. jeex na sëñ Tuubaa daa pare <laughs> borom Tuubaa daa pare. ku ñuy préparé ku pare. wallaahi du benn wallaahi benn. ndeysaan xam naa ñu takk fas wi. aja bismillah bi ñu takkee fas wi. Mhm. fas wa ngelamu la. Mhm. waxoon naa la ne awnullaahi la tudd. Mhm. sëñ Tuubaa dajale mbooloo mi ne leen dimbali suñu borom damaa bëggoon a waxtaan ak yéen mm-hmm. ci lii ma tax di dem ngeen bañ ci am genn njàqare daal di wax ne li ma tax di dem ku yàlla bind boo ko yëg boo ko yëgut yàlla yan na la ko waaye kenn attanu ko waaye man dinaa ne ko janj ba fu waay toll di ko seen jañ janj mooy yëkkati bu gaaw mm-hmm. Mm-hmm. daal di wax ne dénk naa leen yàlla ak yonent bi ak seen baay Cerno keroog lay jàkkaarloo jeeg tubaab bi ñeent fukki at yi lim teg bëriwut jëmm ji matul 70 kilos sëñ tubaa tubaab bi mayoon nañ ko ma ànd ak fukki nit waaye dana ne ñëpp toog ma dem ah. man dong liggéeyal tubaab bi mayoon nañ ko ma ànd ak fukki nit bi sëñ tubaa dem ci mayoon nañ ko mayoon nañ ko mu ànd ak fukki nit fukki nit waaye dana ne ñëpp toog bil maara bu noon may ma fukk damay ñaanaat yeneen fukk keneen ko dul moom sax da koy da koy ñaan ah. waaye mennum sëñ tubaa dana toog leen ma dem liggéeyal yàlla sëñ ma rubba nee bi ma ñëwee ci moom dafa maa wax ne ma marubba ijtahidu bi laa dem leen ngeen toppi ji yàlla digal naa leen ko marubba yëg leen ni li ma fi bàyyi xat sax du ci dam danaa dem danaa dellu si keroog la war ca fas wa di wax naan xusuur yi xallat wal ahlu an ni tafarraqat li ma madaa la si xanxul madihu xasiru xusuur yi xallat samay kër wéet na wal ahlu an ni tafarraqat taqalikoo naak sama njaboot bis boobu kër sëñ tubaa tas na mm-hmm. xam nga lu tax kër sëñ tubaa tas dem liggéeyali sayduna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ma daxee la si xanxul madi wa xasiru mm-hmm. nee na yonent bi dama koo daggal mu tagg te lu ma dagg mu gàtt te bala maa bàyyi mu jot lool rek a tax ma génn dem liggéeyali sayduna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xaajartu min duyuur yi tàqalikoon ak samay kër mm-hmm. wal bunyaan yi gisatuma samay doom mm-hmm. la lan moo ko waral li xidmatil muxtaari lil jinaani xanaa dem liggéeyali sayduna muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy li tax sëriñ sëriñ Tuba dem ci géej gi loola mooy bu màggal tubaa mu dem daj ci loo xamante ne nag sëñ tubaa nee na xayru xuruji ruux lu dul génn ruu daj naa ko ci sama tukki bi nee na lu dul génn ruu daj naa ko ci sama tukki gi waaye nee na la ma ñaanoon suñ borom lépp yàlla may na ma ko xam nga sëñ tubaa bi muy dem daa wax bayit boo xam ni soxla woon a yàlla dimbali ko dafa wax ne aqisi nii aqisi nii yaa safi'i wasilati xunaa waxaddan yow ma sama loolu mooy lan aqis nii xetti li ma aqis nii xetti li ma benn baat bi dongo doyoon na waaye da koo bamtu trois fois nee na yow yàlla xet li ma ndax xam na fi jëm. Mm-hmm. xam na li war a xew xam na tubaab yi xam na seenu caay-caay. mu ne yow yàlla nag nang ma xet li nag. Mm-hmm. tey ak bu ëllëgee suñ borom yóbbu ko mu am fa juróom-ñaari at. Mm-hmm. sept mois sept ans sept mois. dellu si ni mu doon waxee yàlla dañul ni mu doon waxe yonent bi dañuwut nam doon kaalawoo yàqu ko yàquñu jaamu yàlla. te sept ans sept mois yi ci fitna la la dund mhm. te gisoo fu sëñ Tuubaa juuma ci mbindam ba tax sëñ Moussa ne ko amul kuy dajeek nasaraan yi juróom-ñaari at yu mat te yàquñu tawxiidam ku dul yow sëriñ Tuubaa amul ku ñu rëyul yomba mbaa rékki wu mhm. ñañ sànki woon foofee ku dul yow sëriñ mhm. amoon nañu doj woo xam ne jan janloog nit ay mbañam boyal nañu jël nañ dog woowee teg ci kaw sëriñ tubaa amoon nañu nag woo xamante ne jan janloog nit ay mbiram booyal nañu nag woowee mu far àndeek Serigne Touba amoon nañu reyin woo xamante ne ku jàpp teg ca kaw jinnee dot wa dal lay fam ndegam doo borom tubaab nga xamante ne dem na ba dellu si lam doon wax yàlla demul deñul gis nga bi muy dem dafa wax ne tubaab bi ne leen li ma wax Sénégal ba tax ngeen génne ma su ngeen ma yóbboo ci seen suuf ci loolu laay wax loolu mooy fit loolu mooy jëm loolu mais ay dara hmm. loolu mënul ñàkk dégg dégg xorom ko de hmm. dogal kan ak demam gi wolof nasaraanu ndeysaan te kon billaay ñépp dem ni raane kenn du Sëriñ Tuuba dali woon ta may liggéey su dellu see da ngeen añ firnde jaadi màggal gi kenn du Sëriñ Tuuba balaay sëbëri sëñ Mbàkke ak maaram Sëriñ Bamba fekk loo ci àdduna bi sa moroom tooñoo moroom kenn du bamba doomi mam jaara sëriñ bamba bàyyi sëriñ saaliwoo sëriñ bamba bàyyi alaaji falliloo sëriñ bamba bàyyi sëriñ baara maami sëriñ mam Mor Abibu kenn du Serigne Bamba man de way naa borom màggal gi màggal gi jëf la màggal gi bernde la màggal gi du dem di raay xabloo ki ñëw màggal gi loo yéene Bamba jëfal ko Bamba xibul ganaar Bamba yimul gileem ku la dàq bernde te ko joxe kooku la wax kenn du Serigne Touba Mbàkke way balay sa bur amul morom fee yàlla yàlla defal jàmm. si si dara. balay sa bur sëriñ Ba kii balay sa bur sëriñ Ba kenn du kenn du kenn du sëriñ Ba. Ah? kenn du sëriñ Ba tey gis naa la de. xam nga dafa am fu fu mu toll ci waxtaan wi. Mm-hmm. te maanaam bu ñu toppee tukki géej gi. daanaka quatre vingt quinze euh, mille huit cent mm-hmm. ba mille neuf cent deux. Mm-hmm. sept ans yooyu xajul ci jotaay bi. dëgg dañu koy tënk. dañu ñu koy tënkee mooy njëm daa am fu mu toll damay bëgg nga dikkal ma ci ñi fi sëriñ bi bàyyi waaw ba pare ak li tax kii ci biir wayam waaw mu ne sëñ ma numbe mm-hmm. mu njëkk a tabaxal taax ku tedd ki foofu laa jëm li tax ma ne ko na ñëw ci ñi sëriñ bi ñi sëriñ bi bàyyi ci ginnaaw bes man sëriñ Tuubaa bi muy dem bàyyi na fi ku mel ni Cheikh Ibra bàyyi na fi ku mel ni Maam Cerno bàyyi na fi ku mel ni Maam cher Anta mais jàmbaar ji muy wax léegi-léegi muy sëriñ ma numbe xabaan dafa am taxawaay bu mu amoon te tey bu ñu la jotaayalee. dañoo bëgg a waxtaanee jëmm jooju. ak liggéey bi ak réalisation am ci bi fi sëriñ bi nekkee ak bi sëriñ bi tukkee. nga nga dikkal ñu ci. kan mooy sëñ sëñ sëñ sëñ Mandoumbe. ah sëñ Mandoumbe Xabande. Uh-huh. mooy taalibe sëriñ Touba sëñ Touba gërëm. wallaahu akbar ay waay yàlla na ko am waay. résumé lu bari. yàlla na am loolu. doon rakkam. di mbokkam di léppam. sëñ Moussa Ka daa wax ne mbokkum sëriñ Touba cosaan ca wàllu maam fa poroxaan moom piir la ndey jadu sayaan mbàkke bàlla xejji na hmm. maam astawaalooy ndey maam jaara mi jur ahmadu daam mbàkke bu soobee yàgg nañ loolu mooy lan hmm. sëñ Mandumbe mbokk la ci sëriñ Touba ndax maaram mbàkke ngay wax ahmadu soxna buso saxiit soxna buso ahmadu soxna buso soxna astalawbe mbàkke soxna faati isa borom daaru ahmadou soxna so soxna astawaalo mbàkke soxna a seex ahmadou bamba xaadimu rasul lu matal leeral kon laataa taalube gi mbokk gee jiitu dañoo amuk bokk ahmadou soxna buso ak saxit soxna buso ñoo bokk ndey ak baay mm. saxit soxna buso moo jur sëydu mëtti ndaw mm. Seydou Mati Ndaw moo jur sëñ Ahmadou Ndoumbe Xabaan mii nuy waxtaan. gën a jege gën a yaay. gën a jege gën a yaay. Mm. al bu aw allahu waaye. noo bokki ndey te bokki baay ci wàllu maam ak wàllu baay mu dellu fab mbokku ga jaay jëndee ngërëm la wàcce mhm. sëñ ma ndumbe mbokkum sëñ tubaa waaye dafa jaay mbokk gi jëndee ko ngërëm mooy li Mara di wax taalibe dafa jiitu leneen jeex na bëggoon jaay na mbokk gi jëndee na ko ngërëm sëñ ma ndumbe xabaan mii ngay laaj juróom fukki at ak juróom cinquante cinq ans la tërbiyewu sëriñ tubaa la ilaah kooku de at la ko jox cinquante la tërbiyewu sëriñ tubaa maanaam moom mësta wàcc kooku àddunaam la joxe sëñ Moussa Ka nee na jërëjëf sëñ Moussa Ka daa wax ne mësta gestu àdduna xam sëñ Tuubaa bi muy wax yonent bi daf ko wax ne ko bu sóori hmm. kitaabullahi wal Mustafa nabi biha ahtami xamaa nahaa u bu suuru nee na man sama nji mi ma yor di ko ji ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa koy ji waaye sëriñ tubaay itam yonent sëñ ma dumbe xabaan li mu yoroon daf koo jox borom Tuubaa rek toog wallaay ndeysaan maanaam mësta gestu àdduna hmm. juróom fukki at xoola sët di juróom fukki at ak juróom mm-hmm. la tërbiye wu sëriñ tubaa sëñ Mandumbe daa ñëw ci sëñ di ko liggéeyal jox ko boppam jox ko boppam ba liggéeyal ko fukki at fukki at koo ko liggéeyal doy na mm-hmm. sëñ tubaa woo ko ne ko sëñ moor jaara sama mat la aada ak ñàkk jot ak li ma warloo ci tàgg sama sang ba tax na mënuma koo liggéeyal demal nga liggéeyal ma ko la ma ko waroon defal nga defal ma ko seetal loolu mm-hmm. sëñ Mor jaara mooy mag magi sëñ Touba. waaw mhm. sëñ Mandoumbe dem am fa fukki at di fa bay di soq di wol di sàkket muy ñaar fukk muy ñaar waaw dégg nga de sëñ Mor Diarra xëy wàcce ko keroog ba ko sëñ Mor Diarra wàccee ba sëñ Mandoumbe di ñëw ci sëñ kër gépp dañ doon daanuy jël ngir njariñ lu sëñ Mandoumbe amoon allahu akbar ah kuy bay kay di defari sàkket defari kër ngir njariñ lu mu amoon bi mu ñëwee ne ko sëñ Mor Diarra yeewe na ma sëñ Touba daa muuñ ne ko Mandoumbe xanaa xamoo ni ku liggéeyal sëñ Mor Jaara yàlla fay la yonent bi fay la sëñ Mor Jaara fay la ma fay eew eh waay googu fay eh. sëñ Mandumbe jàpp ne liggéey bi mot la sëñ Tuubaa ko ko Mandumbe mu ne ko Mbàkke mu ne ko dafa am lu ma bëggoon te yow laa bëgg nga defal ma ko hmm. damaa ñaanoon suñ borom ni danaa goreel juróom-ñeenti jaam su ma goreelee juróom-ñeenti jaam yi barkeeloo ko ngir roye ko ca sama sang ba Seydunaa Muhammad te awma jot gi te bëgg naa ko ma ko defal benn ñëggi-ñëggi xol boobu rek loolu donc laa niséroon te mënuguma koo def waaye lu ma bëggoon ci yàlla yàlla may na ma ko looloo ma deseel mhm. sëñ Mandumbe xam nga nu mu def mhm. sëñ Touba ñaanal ko mu dem Mali ca xaay sant fa fafana liggéey bi kon yegg na ba foofu foofa allahu akbar am na fa njaboot gu jigéen sax dañoo dundul kon li ngay bëgg a wax moo indi faat yegg sant santuk fafana gi ñuy wax ni moo ko indi moo indi moo ko indi fallaxi ak naas waaw lu ko jiitu sax jumaa njaareem jëla waaye da koo feddali ca fafana jël xuusal ma ci loolu yéen sax mënoon ngeen waxtaane waxtaan déedéet <laughs> non naasi gi nag sëñ Mamor waaw moom maara màggalu ren gi waaw faaw ñu jëli fala xeek naasi gi dégg naa ku bëgg a tàkk da ngay jëli ci fala xeek naasi gi dema guleen yéen dama ko man non faaw ñu dem ngeen newoon faaw ñu <laughs> <laughs> naa sëriñ bi wax newoon na waaw fala xeek gi moom fasal la ko ci lépp ba lu mu ci dogu mu am nan dem jëli suñu fala xeek naasi gi am ci njaboot gu barkel comme ñëpp jariñu na de moo ne de kaar macha allah ku leen xool day mel ne dem ngeen ci falaxa jéem waaw ndeysaan te ngeen a dem dinañ dem doonu fi baax yow moom moom bu yeboo xaar ni moo ñu dalal naa na eh yi baax ci réew mi yëpp moo leen di dalal de ah. ba pare nag ah, safar gi nii nii dégg naa moom commencé na ko ber commencé na berne mat na weer bu yàgg man at mi ma fay njëkk a dem xaarul taalibe xaarul addiye xaarul ku ñëw xaarul ku ñëwul ndax moom maamam daa barke lifam ba pare at at mi ma fay njëkk a dem dama faa dajeeg suñu bàyyi Abdoulaye Lam waaw suñ papa Abdoulaye Lam communicateur traditionnel. ñu toog ak jotaayu ak euh, ki nekk Touba TV waaye dimbali ma. Amidou sëñ Amidou. sëñ Amidou ni ko suñu bàyyi Abdoulaye Lam ba léegi amul oto te bëgg naa mu am oto. yaa ngi dégg mu ne ko bàyyi Abdoulaye amul oto loolu de bu su ko yëg moom sëñ Mamor. màggal la ko wax laataa gàmmu gi sëñ Amidou toog fii ne ma oto bi ma ko doon waxal suñu suñu bàyyi Ablaye jox na ma ko boole ko 200000 ne ma na ci jënd essance miite ci oto bi. Mara foofu du baal ma de <laughs> ndax kon njariñ gi ñu wax maamam. waaw ah. kon nit njariñ gi ñuy wax sët bi doon na maama. waaw doon al wala du sirru ab yi. arab yi nee nañ euh, doom mooy doon secret. boobu sëñ Ndoumbé Xabane njariñ gi mu wax ba gars yi. Mm-hmm. di tëbëka daal ca kër ga ba muy ñëw. Mm-hmm. moo doon sëtam. moo ko doon sëñ maam loolu loolu moom kenn nettalu ma ko. yeggalal sama maam jooju foofu nga nekk mm-hmm. waaw yeggaleel ma bi bi sëriñ bi demee euh, Mali. sëriñ bi. jox ko ndigal ne ko bëggoon naa goreel juróom-ñeenti jaam ngir barkeeloo ko roy ci sama sang ba yonent bi sëñ Mandumbe daa laxas dem fa nga xamante ne moo di Mali di fa liggéey ba mu egget bëggula sant Mbàkke hmm. ndax li mu bëgg kon du ko am te li bëgg nag liggéey koy maye waaw mu làqatu ma Mandumbe àgg na ci hmm. laxasaayu fa di yalwaan ba am départ àgg na ci jënd fa ay gàtt defar leen di jaay ndawal ga ngir bëgg xaalis ndeysaan keroog ci sëñ Touba la ndeysaan ngir mottali sëriñ Touba yéene ngir mottali sëriñ Touba ne ci keroog ba mu amee loolu moom ma Mandumbe daa jënd juróom-ñeenti jàmm du barkal bari indil ko sëriñ Touba sëñ Touba goreel juróom-ñeenti jaam yëpp bàyyi leen ñu libre dellu ci seenu njaboot loolu rek la sëñ Touba doy foofu sax wax nañ ne tubaab bi woon na ko ne ko da ngay jëndi jaam mu ne ko waaw jënd naa leen mu ne ko réew mi dañ fiy tere ku fi jëndi jaam mm. sëñ Touba ne ko dama leen di jënd di leen goreel tubaab bi insisté sëñ Tuubaa ne ko moo man lu may doy jaam koo xamante ne gor yi ñoo bëgg a doon say jaam ko man lu may doy eh, sa jaam looy doyee jaam mu ne ko moo man lu may doyee jaam koo xam ne gor yi ñu loola mos a bëgg doon say jaam boobu rek moo soxla ah, keroog bi mu ko indilee jaam ñi eh. sëñ Tuubaa da ko xool ne ko ma ndumbe mu ne ko mbàkke mu ne ko waxuma la sa jëmm waxuma la sa sët mbaa sa doom pencum yàlla ëllëg yowmal xiyaam ku la xam sax loolu doy na ko ba dana dem aljanna kon nag nañ sant yàlla ku xam sax loolu dana ko doy mm-hmm. ba dana dem aljanna mm-hmm. sëñ ma ndumbe xabaan junñi nga ko mm-hmm. moo njëkk a jox sëñ tubaa junnib dërëm bu dajaloo boobu junni xaalis bu baree bari la sëñ tubaa daa wax ne dénkaane koo wóolu la ma doon dénk dénk naa ko maam Cerno Faati maye ku la neex la ma doon maye may naa ko maam Cheikh Anta Darou Salaam ak Gaawaan. waaw waaw. may naa ko maam Cheikh Anta. borom Darou ak Gaawaan. Mhm. daal di wax na nag li ma ma ndumbe xabaan jox kenn joxuma ko. sëñ Touba moo ne li ma sëñ ma ndumbe xabaan jox kenn joxuma ko sëñ Touba sëñ dafa mënoon a joxe addiya. Mhm. Touba gii li muy rëy rëy nga xamante ne benn dëkk ci Sénégal ëpp ko ay tabax. Mhm. boo fa gëjee boo demee danga nga yëg ne Touba yokk na lool. waaw sëñ ma ndumbe xabaan moo fa njëkk a tabax. sëñ Tuubaa moo ko wone ko ma ndumbe sama dëkk ba ci Touba bëgg naa fa dencukaayu téere boo xam ne day të sawara te ndox te max bu nee të sawara xam na ne waxul sàkket mm-hmm. bu nee ndox waxul senk bu nee wax waxu bu nee bu nee bu nee max waxul baraag sëñ ma ndumbe xam ne tabax la mm. mu dem jënd ciment bu bari ñàkk ci xaalis bu bari tabaxal Serigne Touba tabax bu mu doon denc ay téere mooy fii école daarul xudus bi dina moo waral woykat yi naan moo njëkk a tabaxal sëriñ bi ay taax jeex na mooy ki njëkk a tabaxal taax sëñ Touba biir Touba sëñ Manumbe sama am mooy ki njëkk a tabaxal taax Touba biir Touba Fatiya naa si ma nga fa sëñ ma moo yeggale dama jërëjëf jërëjëf waaw nga xamante ne moo ko njëkk tabaxal sëñ Touba uh-huh. jumaa njaareem itam bi nga xamante ne toll nañ ci liggéey jumaa ji mm. sëñ Tuubaa ko wax ne ko kayeb mbàkke mbàkke yi yaay bind seeni tur lu mbàkke mbàkke bind mhm. yaa koy bind woo sëñ Balla Faali Jeng ne ko lu taalibe bind joxe yaa koy bind moom sëñ Manumbe lañ dénk kaye Mbacke Mbacke kaye Mbacke Mbacke waaw sëñ Balla Faali Jeng seenum àddi moo koy bind moo yore kaye taalibe yi sëñ Manumbe gis ne kaye sëñ Balla Faali Jeng fees na te kaye Mbacke Mbacke yi xaaju mhm. sëñ Manumbe ñëw ci sañ Balla Faali Jeng ne ko bind ma ci ñi santul Mbacke waaye Mbàkke nga sant mu ne ko bindal ma ma ndumbe fafan ndax man yëg naa ne mbàkke mbàkke yu joxewuñ te lu taalibe yi am ci sëñ Tuubaa dama koo bëgg a am allahu akbar loolu la sëñ Musaa Ka di wax ne jaay na sëriñ bi ak rawam hmm. maanaam bi muy doon ndaw ba bi muy doon mag la jaay Serigne Touba lépp lu mu amoon moom sëñ Modou Mbéxe maanaam kon moom ñaari at yi la joxe daa joxe ci ñuy sant Mbàkke mhm. wutaat weneen moom sant dem ci taalibe yi ñoom moom it bindu fa jeex na ñu <laughs> sant Fafana yëmul ci foofu ñu sant Fafana amal nañ seen Mamoor at yi waaw waaw na leen waaw fayal na leen <laughs> fayal bu wér a wér te yëmul ci loolu de mhm. dèjà at yi ji muy joxe ci kay bi mhm. kenn rawu ko ci kenn sutu ko ci ba pare dafa war loolu ne at mu jot danaa joxe cinq cent mille ci jumaa ji jooju jamono booba cinq cent mille man ngaa wax ne cent millions ah waaw jooju jamono ndax junni donc ku ko masaan am da ngay bëri xaalis junni mu ne at mu jot danaa ko ci joxe yemul ci loolu de daa wut lu ëpp ñeen ñeenti téeméeri doomu aadama joxe leen ci jumaa ji ci jumaa njaareem ji nga xamante ne kon sëñ Mandoumbe Xabbaan sëñ Mamor nii muy jëfe hmm. daf koo donn ci maamam sëñ musaaka daa wax ne seetal sëriñ Mandoumbe Mbàkkeem Xabbaan yi hmm. moo daan dundal murit yéeg tiijaan yeeg way ñaan yi maanaam sëñ Mandumbe socialam yëmalewu ko woon rek moom sëñ Mandumbe ci ñi yaakaar Serigne Touba mboolem kuy ab jullit suñ borom ku ku yàlla rusta bind rek sëñ Mandumbe rusulaa teral mm. ci alalam mu doon koo xam ne ab noobul la xam sëñ Touba daa wax ne mm. bi ma xoolee mbaggi sëñ Mandumbe yàlla bindaalewu ci wërsëg maa ñaan suñ borom mu may ko wërsëg nee na bi ma xoolee mbaggi sëñ Mandoumbe yàlla bindaale wu ci wërsëg see mm. laa ji mbàkkeem sëñ Moussa saako bind nee na maa ñaan suñ borom yàlla bindaale ko wërsëg nekk ci mbagam wërsëg woowu nag suñ borom da ko cee defaloon xus sëñ Moussa ka da ko wax ne ko loo mas a wolli nangu na mm. maanaam xus mooy xus mooy loo lijjanti mu sotti ci gàtt yegg na ba ci sët yi eh, loo lijjanti mu sotti <laughs> loolu nag moo waraloon sëñ Mandoumbe amoon xusug mbay nee na itam sëñ Mandoumbe li mu fasanteeg dugub wëllëre moo tax dugub des ci Sénégal waaye bu dutoon kóllëre googu sëñ Mandoumba fasanteeg dugub dugub du am ci Sénégal kon ku lekk tey dugub nag nga ko sant sëñ Mandoumba kon laaxu araw ñuy tiitaroo yooyu yëpp sëñ Mandoumba ñu ko may xàmban kenn maa loolu la sëñ ma sëñ ma kon nag muy jàmbaar joo xam ni euh, lu mat a defal sëñ tubaa defal na ko mhm. mat defal sëñ Touba defal na ko dëkkam bii di kër Magay Ndaw keroog bi sëñ Touba di war ci fas yi lii ma doon nettali léegi di dem ci géej gi daf ne sëñ Mandoumbe xàbbaan dellul ci àll ba di bay di indil borom daaru muy bay di dundale njaboot gi ne ko sama njaboot gii li ñuy dunde ak dong yeeg taalibe yi sas naa la ko sëñ Mandumbe xabaan dem sant ci kër ma Gueye Ndaw 1896 mhm. bi sëñ Tubaa demee ba ca déwén sa bi mu ko sañcee am na fa juróom-ñaari at yi sëñ Tubaa am ci géej gi moom la fa am mhm. di bay di jox ndoom di bay di jox borom daaru sëñ Musaa Ka nee na Bàmbaa ko jox mbindum loxoom mhm. ne ko sasal masay moroom jëwriñ nga tool bi yaa ko moom jihaari baykat metti na waaye xool sëñ Mandumbe ko gore la mm. mboore murit yi mu ne leen maam na mat na yeewu leen bu leen nelaw liggéeyi leen te jox ko Bàmba tukki na sëñ Mandumbe jàkkaarloog mbooloo mi ne leen maam na ku mat la mm. lu ngeen liggéey indi leen ko mu dundal njaboot si Ahmadu Bàmba gi mm. takk laxasaay gi dem kër ma gay ndaw xanaa xamoo sëñ Mandumbe bi ko sëñ Tubaa joxee ndigal laxasaay gi mu takk tekkiwu ko ba bi muy dugg ci bàmmeel laxasaay gi lañ ko waay ndeysaan waay da leen wax ne laxasaay gi ma doon takk di liggéeyale Sëriñ Tubaa du ma ko tekki moom laay duggaale ci bàmmeel ëllëg yow mal xiyaam bu ma jàkkaarloog sëñ Tuubaa mu xam ne maa nga woon ci liggéey ba nekk ma woon ci kër gay noppal daal di wax ne mboolem ku liggéeyal sëñ tubaa sëñ Mandumbe nee na mm. Mm. mboolem ku liggéeyal sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa gërëm la ëllëg yow mal xiyaam ñi sëñ Tuubaa gërëm drapeau ba leen di tiim man sëñ Ahmadu Ndumbe xabbaan maa koy yore kon kon la Serigne Touba dénkoon Cerno bi muy dem ci géej gi. Mm. ne ko njaboot gi bu ñu xiif te bu ñu buñ ndawal. bu ñu saale sëñ ma numbe. moo ko daan bay dimbali na ci Cerno. bu baax a baax. sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nettali na ko boo demee ci Irwa ut. teg taxi ba ma nga fa nettali na ko nee na sëñ Mandumbe Xabaan daf daan bay di jox borom daarul moxti muy bay di dundale njabootoog si ax Ahmadou Bamba gi sëñ tubaa moo ko ci joxoon digal kër ma gay ndaw googa diirub li sëñ tubaa nekk ci géej gi fa la nekk di liggéey di bay di jox boroom daarul moxti bi sëñ tubaa ñëwee njaareem sëñ sëñ Mandumbe daa ñëw njaareem bi mu ñëwee njaareem toog fa ëpp diir jékki-jékki daal di wax ne yéen ñi ami giléem kan moo ci man kan moo ci mën a dem ci kër Magay Ndaw jëlal li ma sama diw gu bari ga fa ne hmm. ma jox ko sëñ Tuubaa addiya ndeysaan ku wax rek moom lu ma sanam rek sëñ Tuubaa lay jox xalaatul boppam ku wax rek mu ne ah man de sama gileem mënuma ko am ku ñu wax moo Moodu Fay goowee hmm. ne ko Mbàkke boo ma ci dimbilee danaa ko def sëñ Mandumbe amoon na gileem guñ doon wax xaar hmm. fanweeri gileem la alaw amoon xam nga lu taxoon mu jënd fanweeri gileem pour ñuy sëf dund bi di ko yóbbul si Ahmadou Bamba ndeysaan waaw seen Mamour li muy def da koo donn de bërki dem wax naa ko ci benn télé mm. nee naa leen mënu koo ñàkk bañ a def da koo donn te olof yi dañuy wax ne loo donn mu dëgër mm. jinax da nga koy dàq ba ci ñag mm. mu bëtt ñag bi dem du xoosu doo ko sekkilub dëkk mais sëñ Aydara donn moo am solo comme que aw ma foto sëñ Mandoumbe nan na may rek foto sëñ Abibou ak sëñ Mamor parce que ñu baax ñi dañ leen a war a bu ko defee téléspectateurs yi seetaan xam naa ne Pape Maguette moom gaaw na ci gaaw na ci dugg Pape Maguette dimbalee ñu loolu waaw ba pare nag murid dinañ nu wëral nag foto sëñ Mandoumbe ñu ci barkeelu waaw ndax ku barkeel moom ku laal ku barkeel ku la laal barkeel. Mm, dëgg na ah. dëgg la waaw nan yàlla ko yàlla fayal Pape Maguette jox jox nu jox nu jox nu ñu baax ñooñu. yàlla ñu yàlla fayal euh, Serigne Ma Numbe ndax itam taxawaayam ci yoon wi. Mm. dootul kenn ni naatable waxtaan wi am na solo te bëgg naa bu ñuy tàggoo incha allah. waaw nataal yaa ngoog ay waykat ak ay directeur wallaahi wallaahi ay animateur ku ne fekk naa ko. maanaam ñi tekki dara ci réew mi. dëgg la boo demee fekk leen. kër sëñ Mame Mor te xaaru leen ci dara ndax moom mate na li mu doon waaye nag sëñ Moustapha na na ma ku jaaxle bu soobee da nga may jéggal rek mhm. kër sëñ Mame Mor laay dal fa nga jëm maa ngi ma ma jàllale sama rakk ji waaw jàllale ko ndax naa Pa Maguette bu ñu ba noppi mu may ñu kili bu dégg daaj bi mu des ci màggal gi nga xamante ne mi ngi ko tuddal màggal sañse mënta ñàkk euh, dencal ma clip bi bu ñu tàggoowee léegi ba noppi nga digtal ñu ko incha allah. mais maanaam li ma sol. waaw ku ñuy wax délégué Ndiaye. délégué Ndiaye. sama rakk ja. moo la def nii. waaw waaw kooku kooku lañ dégg nag soxna Xayri waaye moom Baye Fall la. waaw moom ak lu xiin la bokk. ak lu Baye Fall. Mhm. délégué. Mhm. délégué sama rakk ji délégué sama xarit bi. Mhm. ku bëgg ci yu yi nag Pa Maguette bul soxoon naa la ci wutal. bàyyil maara te nga ñëw ci man <laughs> Papa Ndiaye li mu sol ku ko soxla na woote 418 57 82. 418 57 82. waaye waaye Mara ji. <laughs> moom it am na nu ma def de. suba di nga ñëw ci moom incha allah soobee yàlla. jërëjëf Pa Maguette kontaan nañu ñu bàyyi dégg daaj mu tàggatoo ku ci nekk une minute rek 3 minutes yu ci des nga jox ma ci sama clip boobu incha allah. dégg euh, tàggatoo bi màggal gi fu ñu lay fekk xam naa ne yaa ngi yow moom. Euh, maa ngi ñëw jannatu fekk loolu mën da ñàkk. Ah. ajab ñu la nga nga nga tàggatoo. Ah, di la sant di la euh, yi. Mm-hmm. Euh, waxtu yu bu jotee kenn ku nekk day bàyyi li muy def. dëgg la jàkkaarloog les ambassadeurs. yaa ñàkk ñaan tamit macha allah damay wax naan kenn ku nekk rek ah, tamaa boppam la yore. moo tax émission bi ñëpp koy suivre. fi mu toll nii ñëpp bàyyi nañ lépp. jàppale lépp jàpp set TV kon yàlla leen yàlla defal jàmm ju bëri euh, sëñ Mamour Abibou maa ngi ñaan yàlla guddal aw fanam euh, li ma wax sànq rek nit la koo xamante ni mun woon a ñàkk ci àdduna bi mm-hmm. ndax li mu réparé dafa bëri. te li mu defar dafa. waaye dama la yóbbante moom dogguma la. bëgg naa ñëw de waaye paas bi matagul de. déet mi ngi suivre. ah mi ngi suivre seen bi waaw. nee damaa bëgg a ñëw. waaw waaye ndox mu jëm ca daamar ja. waaw <laughs> dana la ko yónnee ba mu ndox nag sama xel sama xel dem ci benn ndox gis nga màggal gi. ndoxum kayaar da def jëf ju am solo. sëñ bi waaw gis nga ndoxum kayaar. def na ci màggal gi loo xamante ni daanaka ñu bari bu ñu ko naanee sax ci la ñu am lekk jërëjëf sëñ Pape ah, di gërëm sama sëriñ ba saa Saalum ndigal cuun yàlla yàlla defal jàmm Maxtaar Diop suba teel mm-hmm. nit ku baax waaw waaw ku bëgg lu baax mm-hmm. Maxtaar yàlla yàlla guddal yàlla yàlla li ma deseeti ci waxtu bariwul te bëgg naa ñu seetaan sa sa clip bi mm-hmm. euh, ñi ngi jaajëfal sëñ euh, Aydara ñi ngi bëgg ku baax dëgg yàlla waxtaan wi gàtt na waaye leeral yi am na solo te ñun mm. itam jàngaat nañu ci loo xamante ni mm. xamuñu ko woon ci ci sëriñ bi mm. euh, te jàngaat nañu loo xamante ni ci sëriñ Mandoumbe tax nañu gën a xam ak ñàmbaaram ñi ngi lay ñaanal suñu borom gën laa wéral gën a baat bi yokk xam-xam bi sëriñ Aïdara man de kontaan naa lool dafa leer naan Papa ma dimbali ma mu mu mu mu jeer sama xarit jeer jeer yaay sama waay waa kay tubaarkàlla xanaa sant rek ñaanal suñ Mamor waaw suñu borom may ko fan wu gudd lool waa ànd ko wér yàlla yokk ay teraangaam ndax gor su amee ay teraanga di ci teral ay nit mhm. di ci sonn ngir sëñ tubaa nit ku baax ku ne danga ko war a ñaanal mu yokk mhm. sëñ Maamoor ku dem këram xam ne mhm. la sëñ tubaa waxoon ne màggal bernde moom moom màggal gi moom daf koo jàpp moom d'office la dëgg la ndax ma ngay bernde da ngay teral doomu aadama ye te dana ubbi kanamam ba ku fa ñëw dana xam ne kii kat moom li sëñ tubaa woote ci màggal mu ngi ci commencé na ko bu yàgg nuyu sëñ Moustapha xam sa diine di ko ñaanal sëñ borom defal ko tawféex di sant bu baax a baax ñi ñuy seetaan comme émission bi daa gàtt jërul nuy guddal wa salaamaaleykum jërëjëf bëgg nañu dinañu amaat yeneen jotaay insha allahu rabbi Pa Maguette ñi ngi kontaan jaajëfal suma xarit Kayre Holding ah nga xamante ni moom mooy borom CKI KP ka euh, BTE ok CKI BTP loolu mooy lan moom moom mooy borom Kairé holding entreprise sénégalaise la boo xam ne day yëngu ci ay wàllu immobilier terrassement ak yu demee noonu moom mbokkum yaayu Amadou Camara la suñu xarit la ñu koy bëggee bu baax a baax Pa Maguette kontaan nañu dig daje suba insha allah ñu del siwaat dalal euh, Medoune Zikroula moom itam ñu tëje ko safar gi ndax màggal gi dañ leen gunge ci programme bu am solo bu dégg daaj kii bu dégg daaj bi rek bu ko defee nga soog a dem flash may naa ko xayri séeri délégué Ndiaye ma ñawal